sa bopp bu rëy. mag nga. waaw bu arbitre sifflé nga xam ne paa ak a téye mag nga. sa reen yàqu. kuy lekk xar ak kuy lekk mbaamu xuux. Mm. noo yem. del wax rek. doo dërëm tapet nga. <laughs> ngay ñeme lu tepeeku. waaye macc tuñ bi. ngay yee nga xam ne lépp gongo la. ngay bandi bandi lu naan bandi laa grand yow doo dara. waaye Medina bu leen fekkee instant sax dañ leen di génne. tapet ga doo waga ñun dëkk ba lañ jógee. le 27 février ak rent DKR ca stadium Iba Mar Diop. Mbaye Gouy Gui ak Zarko. ak ay combat préliminaire yu neex Yankaaw Junior dina fa jàkkaarloo ak Tidiane fay numéro 2. Babkan numéro 2 dina fa jàkkaarloo ak Pokola Balde. Ñagas numéro 2 dina fa jàkkaarloo ak Thiatou teg jël dina fa jàkkaarloo ak Plom Junior. Param 2 dina fa jàkkaarloo ak Bébé Garga. Pouy de dina fa jàkkaarloo ak Boy Silla. Ramdam Junior ak Caatu Réseau bébé Saloum 3 dina fa jàkkaarloo ak fils de Serigne Ndiaye Sa Thiès dina fa jàkkaarloo ak Aliou Seras lamb ji en direct lay doon pay ci seen affiche point com. amuñu lu ñuy tàppet lii. ba arbitre sifflé la duma dinaa la daal gën a liggéey gën a son yàlla naa la yàlla may ndam ci barke alxuraan ku gën a neex am nga xew de njaaba bi nga cab Sadio Ka am na ko Ndiaye bëgg naa la de nice le moral est bon ante rang muy gaaw bay dem bo mais lu tax toujours am dem naa leen mais lu tax toujours waaw ah, tey yal nañu yàlla may ndam rek. loolu xamul ko. non bu ñu làmb du mu lante rek ñëw nañu ak làmb ji lu mu la làmb daal nañu def fulla fayda rek. mosoo ñëw ci làmb mosoo. non mosul nekk. lu waral loolu tey. te affaire la rek gis nga yal na yàlla. waaye tegtal la. yal na yàlla ànd ak moom. nee nga dafa amee bor. rawatina ndox ci yooyu sax. mais da ngaa amee kon koor bi nga ci diggante. léegi sama supporter laa amee koor. ay sama supporter laa amee bor wala la ko wala ko war nañ ko fay ko soxla yàlla. waaye nii rek. waaw. yaa ngi ma daan ko ak Sa Thiès. moom toujours rek. waaw moom toujours lay jëndi wu. indiwul dara si làmb ji. toujours. indiwul dara si làmb ji. indiwul dara. ay daanu ñu mais bëri bi. waaw loolu laa ma ne la indiwul supporter indiwul géej indiwul dara comme ni tuuti. mais lépp da nga bàyyi. boo ñàkk a ngi doon boo ñàkk a takk na ko aatu dina ko mbott wala tegal 16 wala na arbitre boo ñàkk a takk na ko di ko dajale aatu aatu ràcc Dafa ñàkk ak Aadu Deux te te te ñaari mbir seen combat métti na Aadu Deux moo féete ndeyjoor la boo ñàkk boo ñàkk trois waaw ah, moo tax Aadu Deux ko bés bàyyi ko ci kaw boo ñàkk trois ñàkk na li mu amoon ñàkk na li mu amoon boo koy galaay combat baa ngi noonu diggante Aadu Deux moom moo de moom jàkkaarloo Franc Boy Niang 3 Atou Lo Boy Niang bi daw na jël ko Atou bañ ñaari bërekat ñaari bërekat Atou ak Boy Niang Atou da ko bëgg a Boy Niang bañ na Atou ak Boy Niang déet déet déet Atou Atou lu mu bëgg a def Atou ba Boy Niang waaw waaw Atou li nga doon tante li nga doon tante fi nga jàpp dëggoon fi nga jàpp baaw Boy Niang waaw. sëñ Salim. maa ngi doon ziar. Aliou Diallo. Abdoulaye.

ay ca combat baa ngi noonu arbitre sifflé na diggante Diegane bu Rock Énergie diggante ak Mbaye Gueye Junior diggante jàkkaarloo combat baa ngi noonu ñaari ma daanaka jokaan diggante jàkkaarloo moom la ak Mbaye Gueye Junior ñaari ma daanaka ee tegaar woow Mbaye Gueye méb na waaye demul Mbaye Gueye Junior te ko jurit du boles ak jegaan bu rafet si Mbaye Gueye Junior Sa Thiès ko ak waaye ko dund Double Less yëpp waaye Diegane waa Rock Énergie ñoo ko gunge ñoom Boy Sine frère am ñoom Tapha Mbeur ñoom Dame Suger ñoom Vieux Top waaw gis naa ko Zordu ak seen coach Pape Mbaye mu nga ne la seen coach waaw bi daal wax ñoom nee na dañu bëre ñaari mbër ne xaari man ko waxante woon nañ lu ñaari mbër yi xas na ko woon nañ ñaari poids waaye Dakar nga ko waroon da ngaa amee koor koor mu ne man sama supporter laa man koor bu jegaat. waaw eh combat baa ngi nii nag. combat na xeex ba waaye ñorul jegaat ngi ne tekki di ko xaar. mbéy kay di méb def ay déplacement waaye jegaat a ngi serein di ko déglu. Mbaye Gueye Junior ak Diegane Rock Énergie Diegane ngeen jàkkaarloo moo ñuul moo jógee parcelle moo jógee unité 10 wala nga ne rek oh Diegane ngeen jàkkaarloo doomu si la yoo Diegane Mbaye Gueye daw na jël bañ na Diegane am na ngémb Diegane ak Mbaye Gueye am na ngémb Mbaye am na ngémb ña nga roofoo Mbaye Gueye Junior ak Diegane jël na ko kar waaye bañ na Mbaye Gueye Junior Mbaye Gueye Junior ak Diegane jàppante na ñoom ñaar Ourang nga ngemb Mbaye Gueye Junior téye na Diegane jàpp arbitre bi ne tekk di leen ak Diegane bu Rock Énergie Diegane xarit ante sekk dëggul dëggul Diegane séeréer jigéen la dëkk dëkk bu ñu naan ngarañ su ma jiwoon dinaa jaxaw si. Eh, yaa xam fa nga dëkk boobu la dëkk ngarañ la dëkk moom jegaan. bay ngay si ñor. tuun la ma bu kor laa dëkk. ne ma maa ngi woo askan lawbe yëpp parce que lawbe laa. waaw moom mooy alaaji lawbe. moom mooy alaaji lawbe. boo eh, fee te càmmoñ moo yore rastay. ma ngay door ci fàmb ya pour wàññi waaye jegaan téere ba mu dëgër ne tekk di ko déglu. daanu na. mais daan na ko. Diegane da koo jongale toog. aywa Diegane daanu na. see da ko doon jongale toog na. oo Diegane na. Mbaye Dieye Junior daan na ko. Mbaye Dieye non mbéy mi tiit naa. ma ne ko lan la yaay ñu ne ñu ne ñu ngi bëre. ay mbéy de dama feebar juróom-ñetti at maa ngi ay mbéy de yàlla yàlla. moom nga bëre waale. Oh, mais bi mu waxee loolu sa xel si lu mu def. sama yaay. ndeysaan. sama yaay wala maa bëgg. ndeysaan ndeysaan ñëpp fii nag waaye de. yéen nag maa leen di sant. mais fan nga jëm. non man. foo jëm fii du sa place ci làmb. am na ay copains. te dinaa wax ak ñoom te dinaa leen jël yéen ñëpp. incha allah dinaa seet si. incha allah incha allah. am na lu ma maa ñëwoon ci làmb. mais ñëwoon ci li nga bëri. non kii. mun naa xamul naa ko daal dama doon zongale. daa doon làmb dama doon zongale. non xoolal parce que seen i làmb bi amaa campagne ba jeex takk. su bëree rek amaa campagne ci campagne bi ba jeex takk loolu la ma wowal. bu bëri ndeysaan naan entre nous waru waru ma ñëw combat bi bu bëri ma jaay laa doon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 waaye macc tuñ bi nga yeeye nga xam ne lépp gongo la ay bandi bandi lu naan bandi laa Grand Yoff doo dara waaye Médina bu leen fekkee instant sax dañ leen di génne. tapet ga doo waga ñun dëkk ba lañ jógee. le 27 février ak Rent DKR ca stadium Iba Mar Diop. Mbaye Guy gi ak Zarko. ak ay combat préliminaire yu neex Yankaaw Junior dina fa jàkkaarloo ak Tidiane fay numéro deux Papkan numéro 2 dina fa jàkkaarloo ak Pokola Balde. Ñagas numéro deux dina fa jàkkaarloo ak Thiatou Walo. Tek Jël dina fa jàkkaarloo ak Plom Junior. Param 2 dina fa jàkkaarloo ak Bébé Garga. Pouy 2 dina fa jàkkaarloo ak Boy Ramdam Junior ak Thiatou Réseau bébé Saloum 3 dina jàkkaarloo ak fils de Serigne Ndiaye Sa Thiès jàkkaarloo ak Aliou Seras lamb ji en direct lay doon pay ci seen affiche point com. amuñu lu ñuy tàppet lii. ba arbitre sifflé naa la duma dinaa la daal gën a liggéey gën a son yàlla na la yàlla may ndam ci barke alxuraan ku gën a neex xale bis am nga xew de njaaba bi nga cab yow